قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم sadaqallahul azim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di sant yàlla di julli ci seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk téléspectateur u TV Euh, nuyoo bi ñu ciy jiital xalif général Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ak lépp lu mu jaboote euh, jël nuyoo xalif généraux yu nekk ci réew mi yëpp teg ko ci loxoom euh, nuyu tamit kilifa aada yi waaye wàcc nuyu njabootam jël nuyoo boobu teg ko ci loxol Serigne Souleymane Seck borom xaas mi nga xam ni tey macha allah fii ñu nekk moom moo ko sanc muy daara islamique de Serigne Jibrilu sekk nekk fii ci madinatu Thiénaba Euh, ci Touba gi macha allah euh, daara jooju ñu leen wax muy daaray Baye Serigne Jibrilu Seck euh, ginnaaw bi ñu nuyoo tamit kilifa yi canaba yi yëpp wàcc ci njabootu moom Ahmadou Ndak Euh, sëriñ Cheikhou Amadou Seck imaamu ratib bu Canaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi euh, sëriñ Alsaan Ñaana Seck chef de village bu Canaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi euh, waaye nuyu kilifa yi nekk biir Canaba yi yëpp macha allah bàyyiwuñu kenn sëriñ Souleymane Seck borom xaas ñu ngi koy nuyu beneen nuyoo boo xam ni nuyu spécial la ndax tey ak sëriñ Talla Seck mi nga xam ni tey moom mooy magam ak njabootu bàyyi sëriñ Jibrilu sekk yëpp njabootu maam ma dikke Euh, teg ci nuyoo bi ci loxo sëriñ Mouhamadou Roqee Seck ak njaboot gi yëpp macha allah ñu leen di nuyu di leen ziara euh, mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee léegi rek ñu ngi fii euh, ci Medinatu Canaba Touba Gueye fii ci daara jii di daara islamique sëriñ Jibrilu Seck Euh, macha allah di waajal nag bésam bu màgg bi nga xam ne muy bisu conférence euh, bis bi kañ la dimanche 31 mars 2024 euh, ñu war koo def fii ci daara ji ci Medinatu Canaba macha allah daara ji nga xamee ni Baye Serigne Souleymane moo ko sanc macha allah archive yaa ngi fi keroog bi mu koy sanc mbooloo mu bari ñoo fi daje waaye booba protocole la woon ndax sanc bi jiitu na loolu ndax buñ nee daara yi Baye Serigne Jibrilu Seck loolu mooy kon daara ji yàgg na fa da nga koy topp ba ci Baye maam Serigne ma dikkee waaye topp ko ba ci. Euh, maam Ahmadou Ndak Seck macha allah yal na yàlla dugal leen àjjana te ñu dëkk fa ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñuy woote nag woote bis bu màgg boobu euh, xam naa li ñuy njëkk a def mooy jël kàddu gi jox ko sëriñ Babacar Seck. macha allah mi nga xam ne tey moo fi nekk nekkal fi njaboot gi nekkal fi kilifa yi moom mu jiite njàngale mi fii ci daara ji moom moo ñuy fàttali daara ji kañ nañ ko sañ ci cosaan li ak daara ji naka lay jàngale njàngale mi nu mu demee Euh, fàttali ñu tamit bis yi nga xam ne moom la ñuy waajal ñaata bis la la ñu romb ak ñaata euh, gone ñoo fi mokkal alxuraanul karim euh, bu ko defee rek loolu di mbégte waaye ginnaaw loolu tamit dina yëkkati woote jëmale ko ci sëriñ daara yi mu bokkal dëkk bi ak yi mu bokkal tund wi bu daaneelee ki nga xam ne moo yore kàddu Baye Sëriñ Baye Sëriñ Souleymane sekk borom xaas Euh, muy bàyyi Jibrilu sekk euh, moom moo yore kàddoom fii ci jataay bi euh, macha allah ci loolu ñuy profité di nuyu tamit magam muy sëriñ Mouhamed Seck mi nga xamee ni macha allah moom tamit bàyyi sëriñ Jibrilu teewal na ko fi yëkkatil ko ay kàddoom muy kàddu bàyyi sëriñ Souleymane ay kàddu yu woote jëm ci kilifa yi jëm ci njaboot gi waaye jëm ci ñiñ ko bokkal bu ñu bu daaneelee moom bàyyi sëriñ Jibrilu kàddu gi dina dem ci bàyyi Abdou Guèye bàyyi Abdou Guèye nag ku ko xam xam ko ci dëkk bi xam ni benn dëkkandoo la waaye xam ni ñaar Euh, nit la koo xam nit ku taxawu daara ji la euh, nekk parent d'élève macha allah moom mooy yëkkati kàddug euh, parent d'élève yi Euh, bu daaneele soxna Ndey Njóoba Mbuub mi nga xam ni tey kàddug yaayu daara ji moom moo ko yore euh, yoral ko macha allah ñi mu bokkal euh, moom moo koy yëkkati rek yëkkati leen ko yëkkati woote jëmee ko ci bis bu màgg boobu macha allah kon noonu rek la annonce bi defee demee ñu ngi jaajëfal nag ñi ñu ko àndal ci jataay bi yëpp waaye jaajëfal Alpha Ibrahima Sarr bi ñu àndal ci caméra bi kon ci kanam tuuti rek dañuy déglu Serigne Babacar Seck bu ñu paree déglu Baye Serigne Jibril Seck ak Baye Abdou ak ki nga xam ne moom mooy soxna Ndey Njóoba Mboup aoudu billahi min alcheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa nabiyina wa sayidina muhammad ibni abdillah wa ala wa sahabati ajmain wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi maa ngi nuyu ñëpp fu waay di ñu bàyyee xel rek ñu jël suñu nuyoo di ko teg sa loxo di jël ci nuyoo bi nag alxalifatul am Baye Serigne Xasan sekk ak mboolem njaboot gi waaye di ca toftal nag suñu wajur bopp muy Serigne Souleymane sekk borom xaas nga xam ni lépp moom la di ko ñaanal wér ak gudd fan bu yaatoo yaatu tabaarakallaahu uh, alxaaji Njambe ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci laaj yooyu nga xamante ni laaj nga ko ci ak tënk. <coughs> daara ji defe naa tableau bi moom lañ jàkkaarloo na le mm-hmm. ñu ngi ko inauguré deux mille deux mille treize sëriñ bi euh, jagleel intégration boobu ku ñuy wax sëriñ Mamour Mbacke loolu di wane ni ku jaxasoo la ak kër diine yi mm-hmm. di wane ni lépp benn la sotti ci ak def ci la euh, diggante boobu ak léegi nag euh, wax dëgg yàlla xale yi ñu ngi góor bu baax ñu itam ñu ngi góorgóorlu ci xale yi ba defe naa liñ fi amakus néew ci ñu fi jaar ci suñ loxo ba wattu téere yàlla bi euh, bari na bariwul muy fukki fukki fukki xale ak juróom dëgg yàlla ci ak euh, suñu suñu xam naa suñu njàmbaate it ak góor góorlu ak euh, nangoo nekk ci ndigalu góor gi taxoon na ñu wéet ci lool ndax tàmbalima daara moom day xaw a day xaw a metti surtout daarab sëriñ xam ne léeg-léeg mën ngaa jékki-jékki gis xale bu xale bu ñëw nga ni lii nag ñu ni góor gi moo ko fi indaale nga téye jàngal ba mu mokkal alquran ñu woo ay way juróom ñaal ko mu dem loola yaatu na ci daara ji lool bu ko defee euh, ci ginnaaw bi nag wax dëgg yàlla am nañ fi euh, ku ñuy wax ustaad Ndaw ci ñaari at yi mu doon jàmbaar lool jàppale ñu ci liggéey bi ci daara ji wax dëgg yàlla euh, ñuy jaajëfal li liggéeyam ak taxawaayam ak jàppale boo xam jàppale nañ ko ci daara bu baax tabaarakallaahu beneen bi ci topp it euh, njàngum xale yi euh, ñaari riwaaya lañu fiy jàng ñu ngi fiy jàng xafs di fi jàngale itam riwa riwaayat wars nañ fi jàng xafs di fi jàng wars xam naa bis bii ñu dëdmal incha allah dina ca gën a leer mm-hmm. ren nag dañoo génne juróom benn mm-hmm. ñu mokkal alquran waroon na ko ëpp sax waaye ñun dañuy bëgg mm-hmm. euh, lépp lu ñuy présenté rek mu doon loo xam lu wér la li ñu xayma woon ba waroon koo génne ëppoon na loolu ëppoon na loolu bu baax waaye léegi-léegi gàllankoor dox fii alquran moom yàlla kenn ku ko am rek jagle la ci yow ñii yàlla dafa leen jagleel lixlaas lañ cay man ñi yàlla jagleel leen amma lañ cay yem ñi yàlla jagleel ñu xaajal xaalal ma xul yàlla jagleel leen mën nañu dem ba ana am sax arrêté fa seenum njàng yàlla jagleel dañuy wàcc rek ñi yàlla jagleel nag dañuy mokkal ñooñu yàlla jagleel nag ñuy mokkal ñenn ñi dañuy am chance xaar seen diplôme ñu jox leen ko ñii nag euh, amaana dañu ñii duñu am chance boobu mooy sababu léeg-léeg gàllankoor di ci am kon bu ko defee euh, mbir maa ngi noonu noonu lay doxe bis bi nag tombeek euh, la le 31 di tombeek euh, dimanche le 31 mars bii ñu nekk di ci woo ñëpp nag di ci woo ñëpp xam naa ni ku fi ñëwit di nga xam ni am njànga ngi fi léeg lekk nga téye daara noo xam ni amaana ñi ñi lay gis nga dem ak a ñëw mën nañu am luñ fokk waaye ku ñëw ba testé xale yi mbaa nga diglu xale yi dinga xam ni am njàng mu ngi fi te yëf ñun ñor nañu bu fekkonte ni lu ñu ñorul la kon ñu ngi suñu yi bopp waaye tamit bokk na lu tax ñu gën ci góorgóorlu mooy ndigalu jur waaye xam pay bi nga xamante war nañ ko ci am ëllëg ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala kon loolu daal mooy yëf yi daara yi tamit euh, ñu ngi leen di woo ci bis bi bàyyiwuñu kenn nag xam naa damay bañ a lim mhm. ndax bu ma limee dina am ñoo xam ni mhm. du ma mën a jotal ca ñoom mhm. waaye jamiya bii nga xam ni moom lañu ñu moom la ñu moom la seq muy jamiyatul madarisul quran bi Thiénaba Seck wa ma hawlaha li li li wundu Thiénaba ak li ko wër mbooloom sëñ daara yooyu nga xam ni ñoo seq daara yi ñu ngi leen di woo bàyyiwuñu kenn tund bi it ñu ngi woo ñëpp xam naa loolu Baye Abdou gay dina ci ñëw incha allah ci ñiñ seqal liggéey bi ci fii ak tund bi yëpp ak dëkk bii ñu nekk it di dëkk boo xam ni tey bu fekkoon indiwuñ ñu seen i ndongo kon duñ jàngale ñoom itam kóolute bi ñu am ba jox ñu seen i njaboot ñu def ci ñoom alquran yàlla na yàlla def alquran jooju doon lu sax ci seen dënn ba pare nekk lu barkeel kon ñu ngi sant di gërëm bu baax président parents d'élèves yi nga xam ne ñoo seq daara ji fii ci Touba Gueye yàlla na yàlla barkeel te gën a mottali te yaatal baax a baax a baax jërëjëf macha allah billahi min alsheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah wasalaatu wasalaamu ala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di ziyaara ñëpp di baalu xaq ñëpp waaye di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu defal ñu njëgal waaye comme ni baay Moussa Ndiambe gee nuyoo rek sëriñ Thiénaba imam chef de village ak ñu koy jàppale ak xadara bi yëpp tabaarakallaa foofu la ñuy teg suñu nuyoo xanaa rek waat nuyuwaat dollewaat ziar sëriñ Souleymane Seck borom xaas mi nga xam ne tabaarakallaahu moo sos bërëb bi diggante mil 2008. Mhm. topp liggéey ba 2013 comme ni ko sëñ Babacar waxee mu inauguré ko. Mhm. waaye jagle leen ko sëñ Mamour Mbacke. Mhm. comme ni nga ko xare loo doon firndeel rek wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. tabaarakallaahu sëriñ Babacar kenn ko nekk xam na ni daara Alhaji Idrissa Gaye fa la jànge alxuraan tabaarakallaahu. ba wattu ko waaye yemu ci rek ba mu paree dañ ko faa téye defal ko formation tàggat ko yor na daara ja bindi alliwe lañ koy tuddee bindi alliwe ay at téyal ndongo yi ay at euh, yor ay euh, xalxa macha allah tabarakallahu euh, ba xam naka la ñuy jàngale macha allah falo daal daale xam-xamam ci oustaz Mounir Gaye tabarakallahu bi mu ñëwee àggale njàngum xam-xamam ci biir dëkk bi ak gox yi ba ci Thiès ak xombal tabaarakallaahu mottali fa ay diplôme am ba nga xam ni fànn boo ko làmb ci xam-xam tabaarakallaahu ngir responsable ngir responsabilité yi nga xam ni dina ko dina ko yanu muy mel ak i atteem daara ak yarinam tabaarakallahu macha allah muy jàmbaar lool nekk ci daara ji jàngal fi ay xale ba ñu mokkal alquran lim bi xam naa incha allah dinañ ko wax lim bu bare bëri bëri ñoo xam ne mokkale nañ fi fii alquran te képp koo xam ni jàng nga fi alquran it ba mokkal ko dinañ la yóbbu ci sa biir kër ñaari way jur nga toog ci ëtt ba ñu géewal la nga tàmbali làmba naasi tabaarakallahu tari ko ba ñu xam ni mokkal gu wér a wér a la macha allah comme ni nga ko waxee riwaaya warsh ak xafsa la fiy jàngalee macha allah donte moom sëriñ Babacar juróom riwaaya riwaaya yi ñuy jàng yëpp gëstu ko ba maîtriser ko ba man ko waaye yi gën a yomb ci xale yi muy ñaar yooyu mu ngi leen koy jàngal macha allah di ko jaajëfal ci taxawaay da ndax xam nañu ni ndaw la fan fanweeri atam bu tegee lam teg bariwul waaye ba mu jugee ba mu xàmmee la dem daara ba mu jugee ci daara ñëw sos daara toog ci daara tabaarakallaahu daara tënk ko yor léppam mu yor lépp daara tabaarakallaahu yàlla na yàlla wattu ko yàlla na yàlla def ko mag yàlla na yàlla barkeel ko képp ku mu jàngal yàlla na nga mokkal alxuraan bu ko mokkale yàlla na ko dégg su ko defee rek tabaarakallaahu ñu ngi sant Serigne Souleymane Seck mi nga xam ne it moo ñu fàggal lii moo ñu fàggul lii tabaarakallaahu ndax lii ku ko fàggul njaboot fàggul nga ko lépp rawatina doomi soxna tabaarakallaahu ndax amuñu lu dul alxuraan te xam nañ ne alxuraan moo gën a moo moo gën a yëkkatiku lépp hiya arfa'u uh, uh, hiya arfa'u uh, hiya arfa'u qiraa lépp loo xam ne rek ñu ngi koy jàng rek alquran moo ko gën a yëkkatiku wa wa asdaquha wa abrakuha wa ajmaluha waaye bu la neexee sax nga ni wa mutayyibatun lil qalbi lahu min anjaas shirki wal kufri wal nifaaqi wa shakki alquran mooy ba mooy mooy mooy mooy mooy baat yi nga xam ne wala mooy njàng mi nga xam ne wala mooy téere bi nga xam ne tabaarakallahu mooy laabal xol waaye bu ginaaw bu laabalee xol nag mooy dimbali nit ki ba mu diñ ci réer dañ ci bokkaale dañ ci sobe dañ ci yu bon a bon yu bëree bëri tabaarakallahu macha allah euh, comme ni ko euh, borom bi subhaanahu wa taala waxee ci sóotu Israël mm. euh, ni alquran daal mu ngi nii man ba yàlla maa ko sàkk qul la in ijtamaat al insu wal jinnu ala an yatuu bi mithli hada al quran laa yatuuna bi mithlihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira wa laqad sarafna linnaasi fi hada al qurani min kulli mathalin fa aba aktharu nnaasi illa kufra maanaam alquran kéemaan la lu yéeme la nit aku jinne bu ñu dajaloo woon mënuñu cee génn lu toll ni benn xaraf wala lu toll ni tarwatul ayni kon mu nekk loo xam ne mujiza la suñu borom subhanahu wa taala jox ko yonent bi mu jàngal ko jullit ñi ngir mu nekk seen damira seen constitution bi nga xam ne tabaarakallaahu ci la ñuy niitu ci la ñuy attewoo ci la ñuy defar suñu dund waaye ci la ñuy defar suñu àllaaxira mën nañu rek alxuraan mooy bato bi nga xam ne moom la ñuy jël teg ko ci géej gi ngir jàll gi jël jéggi géej gi ngir dem tabaarakallaahu yawmal xiyaam ngir tabaarakallaahu dem am fa àjjana mm. kon su ko defee rek mm. sëriñ Souleymane sekk ci kàddoom la ñuy waxee comme ni nga ko waxee mm. sëriñ Mouhamed Seck ñu ngi koy ziyaara di taawu góor gi tabaarakallaahu ñu teewal fi njaboot gi yëpp sëriñ Abdoul Aziz sëriñ Moustapha sëriñ Ibrahima sëriñ Góora tabaarakallaahu yëkkati kàddu Cheikh Souleymane rek rek di woo famille bi famille maam Amary Ndaak Seck tabaarakallaahu boo ñëwee di ko gën a yaatal waaye ñu jukki rek sëriñ Mouhamed Seck Roqaye xalifa maam ma dikke sëriñ Ibrahima Seck taala ak sëriñ jibrilu sekk tabarakallah borom yaaram ak seen i njaboot seen i famille doom seen i sët seen i taalibe ak seen i muxaddam sëriñ Souleymane Seck tabarakallahu nee na mu ngi leen di woo ci bisu alxuraan bi nga xam ne tabarakallahu sëriñ Babacar Seck di doomam moo yor yi ba juróom benn xale wattu fi alxuraan tabarakallahu mu ngi woo ñëpp rek Seck borom xaas tabaarakallaahu ci ndigalam rek euh, ñuy wax ni Serigne Maodo Seck Babacar ak Serigne Adama Seck Babacar ak Serigne Alpha bu bàyyi Serigne Ousseynou Khoudia tabaarakallaahu bi sa conférence bi dañ leen cee fas yéene rendre hommage Serigne Babacar Seck tabaarakallaahu euh, borom daara ji macha allah def ci ay taxawaay yu ama am solo euh, ci ndigalu góor gi kon ñu ngi koy yëgal tabaarakallaahu ay njabootam ay soxnaam ay taalibeem tabaarakallaahu ak ay am di jàmmam ay wëlëreem ak seeni soppe tabaarakallaahu ñu xam ne bis bi dañ leen ci rendre hommage kon nag ñu ngi koy ñu ngi ci ñu ngi koy fàttali ñëpp rek di ci woo ñëpp ak mboolem jullit tabaarakallaahu bu dem barsax rek bisu alxuraan moom bis la boo xam ne yelloo na ñu rendre ci hommage waaye dañuy settee suñu mbokk yi nga xam ne tabaarakallaahu suñuy dëkkandoo la ñu woon suñuy wayjur la ñu woon suñu sëriñ suñuy xarit tabaarakallaahu di woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah boo seetaanee xam wala juddoo sa carte da nga xam ne kaddu gi tabarakallahu mooy sa woote ñu nga lay woo kañ la samedi wala dimanche le 31 mars incha allah ci biir weeru koor gi ñu ngi ci woo ñëpp tabarakallahu di soññ nag bis bis baa incha allah parents d'élèves yi teel Euh, élèves yi ndongo daara yi teel tabaarakallaahu waaye tabaarakallaahu ñi ñu invité ci bis bi teel ñu teel a commencé ndax weeru koor la bëgg nañu incha allah bu ñu demee ba quatre heures lu ñu ci teg rek incha allah ñu ñaan yëkkati jataay bi kàddu yi rek lañ doon yëkkati ci turu Cheikh Souleymane Seck ak turu njaboot gi in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi maa ngi nuyu mbokk Euh, di xam ni ku xool sunu jotaay bi rek di nga xam ni bis ba nga xam ni nii dañ koy waajal at mu jot mu ne fii ci daara yi Medina Thiénaba ci Touba Gueye di daara yi sëñ Souleymane Seck te sëñ Babacar Seck yore ko euh, bis booba la ñuy waajal bis booba nag ñu ngi ciy woo tàmbalee woo képp ku nekk Thiénaba rek nu ngi la ko yëgal. di ko yëgal waa Touba Gueye gépp nag ak tund yu wépp nag mm-hmm. damay bañ a lim waaye waa tund yu wépp rek ñu ngi leen ko yëgal mm-hmm. di leen xamal ni leen bis boobu bisu alxuraan la mm-hmm. le 31 lay doon di dimanche maanaam dimanche vote bi ba ca topp rek mooy bisub euh, daara ji ah mu ngi soññ ñëpp nag di soññ nag euh, parents d'élèves yi ñi nga xam ne nii nun daanaka noo waral bis bi Euh, ndax lu Babacar def rek ñun nii la ko dimbalee euh, ma di leen soññ nag bëgg bu ku xëdd rek bul tëddaat na nga ñëw ñu teerule Babacar ay ganam ndax Babacar day am ay ganam yu ñëw te nun ñii nooy loxoy Babacar noo war a dikk nun ñii parents d'élèves yi ñoo war a dikk teel a ëgsi dikk teerule ko gan yi tatagallo gan yi dalal la ko gan ba gunge leen ba lépp sedd guy ñu ngi kontaan nag lool lool lool di ci woote bi ah ndax nday mbir moo xam ne mii day mbirum àdduna comme ni ko bàjji bi waxee te mbirum àdduna ak mbirum àlaaxira mooy defar àdduna di defar àlaaxira mbir nag su fekkente ni mooy defar sa àdduna defar sa àlaaxira bor nga caa sóobu bu baax ba ku la sa fekk xam ne yow mi soobu nga ci loolu laay wootee ñëpp nag. bu kenn des Touba Gueye bu kenn des ko fi am doom ku fi amul doom nu ñëpp nañu ñëw ñu delloo njukkal Babacar mii ndax Babacar kat defal na ne fii ci Touba Gueye loo xam ne mënuloon ko suñu bopp. dikk na fi samp fi daara mais dina cana ba tubaarkalla macha allah ci turu sëñ Souley ñu ngi kontaan di taxawal foofu rek woote bi di soññ ñëpp nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala maa ngi leen di nuyu leen sant di jiital Serigne Souleymane Seck ci nuyoo bi. ñaanal sëriñ Babacar Seck ndax li mu ñu defal ñun xam nañu ko macha allah ah, daara ji suñuy njaboot rek ñoo fi nekk waaye Babacar xam na ni ñii ay njabootam lañu ay mbokkam la ci dëkkam la ne ah, sonn na ci xale yi jàppale na leen ku mu ci gisul sonoo daal la wala mu jël téléphone am ñëw seet la ba xam lan moo la tënk wala lu la téye loolu lépp ci yëg-yëg la. ak ah, def liggéeyam ñoo ngi koy sant di ko ñaanal yàlla di sant nag suñu kilifa yi yëpp di leen ñaanal di ñaanal suñu njaboot yi yàlla na ñu dund ba ñu doon ay mag nekk ay kaang nekk ay yaa sayda ñoom ñëpp yàlla mën na ko yàlla na ko def waaw ah, di woo ñëpp nag ci bis bi nag bis baa ngi noonu di woo na ba comme ni ko ñuy waxee rek ñi ko ñëpp waxee ñu ngi leen di woo na ñëpp ñëw ñu jàppale Babacar Seck ñu teerule ko gan ñi jàppale ko ci njaboot yi ak xale yi la macha allah bis bi daal ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye yal nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam kontaan nañu maa ngi wax nag ci kàddu soxna Ndeye Kane yaayu daara ji def fee ko tey dafa am lu ko tënk moo tax ma ñëw teew di ko waxal waaye kontaan nañu torop wax dëgg yàlla Babacar taxawaay bi rafet na sëñ Babacar ñu ngi lay ñaanal yàlla yokk la yokk xam-xam bi yokk ko njaboot gi ci barke Seydina Mohamed jërëjëf. Euh, mbokk jullit yi mbokk taalibe yi kon euh, bis baa ngi noonu euh, muy bisu conférence daara islamique Serigne Djibrilu Seck nekk fii ci Medinatu Canaba ñu war ko woote nag dimanche le 31 mars 2024 fii ci biir daara ji ca kàddu gu njëkk ga dégg ngeen Serigne Babacar Seck ni mu ñu leeral rek daara ji fa mu jaar ca cosaan la 2007 2008 ba 2013 nag Serigne Souleymane Seck woo ay kilifa Euh, ginnaaw bi mu amee kili euh, ndigalu euh, kilifay dëkk bi macha allah jagleel ko sëriñ Maam Mor Mbàkke mu ñëw rek ubbi ko waaye bi ñu sosee daara ji ak léegi fukki ndongo daara ak juróom mokkal nañ fa alxuraanul karim sëriñ Babacar Seck nag le 6 le 31 décembre 31 mars bii di ñëw macha allah ñu war a génne nag juróom benni ndongo daara yoo xam ne mokkal nañ ci année bi war leen a defal feetu alxuraanul karim Euh, fii ci daara ji ñu ci woo mbokk jullit yëpp di ci woo tam parents d'élèves yi ndax am nañ ci ay taxawaay yu ñu ci war a am euh, ginnaaw loolu bàyyi sëriñ Jibrilu Seck euh, moom tamit dellusiwaat na ci jaar-jaaru sëriñ Babacar Seck mi nga xam ne moom la kilifa yi jox daara ji fi mu jaar ci mu njàng ak ni mu ko teewloo ak ndigal li mu am ba mën a toog ci daara je ca départ ba ca métit yaak yëpp ba tey macha allah mu toog fi ñaanal ko yàlla yàlla bar yàlla ko yàlla barkeel ak ndongo daara bu fi mën a jaar Euh, ginnaaw loolu tamit euh, jaajëfal waajuram mi nga xam ne tey euh, lii moom moo leen ko faggul muy Serigne Souleymane Seck borom xaas yëkkati kàddu tamit ci ndigalam daal di woote rek woote bu mag boo xam ne ci turu Baye Serigne Souleymane la ko wootee jë jëkke ko ci xalifa bi Baye Serigne Assane sekk waaye wàcce ko ci njabootu maam Ahmadou Ndaak Serigne Modou Roqeya sekk cër bi mu ci am ak njabootu maam ma dikkee waaye Serigne Ibrahima sekk mu bàyyi taala xaar ak njabootu maam Ibra Penda yëpp euh, sëriñ euh, euh, Jibrilu Seck ak njabootu maam Tafsir Momar Talla Seck macha allah ak muxaddam yeeg taalibe yeeg xarit yeeg mbokk yi Euh, képp koo xam ne rek euh, yaa ngi dëkk Canaba euh, di grande famille bu yeewoo Canaba fàttewuñ leen olof day wax ni ku lim di nga desal moo tax rek mu jël woote bi teg ko ci loxo Baye Cheikhou Canaba pour mu mën koo mottali rek ba ñëpp jot si seen wàll waaye fàttewul tamit administration bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Canaba le sous-préfet la ciy jiital monsieur Babacar wàdd wàcce ko ci monsieur le maire wàcce ko ci ñi nga xam ne ay way politique lañ tey yëngutu ci wàllu politique nekk biir Canaba bàyyiwul kenn ñoom ñëpp mu ngi leen di mu ngi leen di mu ngi leen di koy koy yëgal macha allah di leen ko fàttali waaye dëkk yi nga xamee ni ñoo wër Euh, Thiénaba wër euh, ma njëkkee ko ci Touba Gueye euh, jël kër Mëgey Ndaw macha allah nga xam ne ay dëkkandoo lañ kër may sa Ndiake ay dëkkandoo lañ Xay Babal ay dëkkandoo lañ Thiénaba Gare ba jàll ba Cawaare ba kër band Ñang macha allah kër Ibra Ñaan kër Mamour Pouye nga xam ni macha allah ak Aneen ñoom ñëpp ay dëkkandoo lañ kon wooteeb Serigne Souleymane Seck bi mu wàccee ci njabootam jaarale ko ci Serigne Babacar Seck mi yore daara ji mu ngi leen di woo ci bis bu màgg bi di bisu Karim euh, Baye Abdou Guèye euh, moom macha allah moom tamit euh, mottali na woote bi rek Euh, soññiwaat parents d'élèves yi ñu gaaw a génn nag euh, teel a génn ci conférence bi macha allah ñëw taxaw euh, xale yi macha allah mu nekk loo xam ni lu am am solo la programme mu bis bi nag nii lay tëddee bu ñu xëyee 8h30 ci la ñuy def mise en place bu ñu demee 8h30 nag ba 16h30 njàngum alxuraan muy prestation ndongo daara yi macha allah dinañ ci dugal tamit ay kàddu muy causerie am na benn thème bu ñu ci war a war a dugal muy l'importance de l'éducation du Coran. par Serigne sa gay moom mooy développé thème bi macha allah mu nekk thème boo xam ni euh, thème bu amaam solo la waaye euh, journée euh, conférence bi muy bisu alxuraanul karim bi tamit dafa am ñu ñu ko parrainel soxna kure Sall di madame Niang dëkk Thiès moom mooy marraine bi macha allah moom tamit nekk ku amay taxawaay. Euh, nekk kóllëre waaye nekk ku taxawu daara ji euh, Serigne Khadim Gomis moom mooy parrain bi moom tamit macha allah euh, ay taxawaay yu am solo la am ci daara ji waaye ay taxawaay yu am solo la taxaw taxaw ci ñi nga xam ni ñoo ŋànk daara ji kon ñoom dañ leen di delloo njukkal rek macha allah di leen teeru kon mu ngi noonu di ñaan tamit seen i mbokk rek gunge leen ñu ñëw teeru leen fii ci Thiénaba ndax bisu alxuraanul karim la surtout nag mu daje ci weer woo xam ni weeru alxuraanul karim la mu mu jig leen euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Serigne Souleymane Seck euh, borom xaas wax ni euh, bisu alxuraan boobu ñaan yeeg li ci topp yëpp dañ koy jagleel waajur ya waaye dañ koy jagleel ñi nga xam ni barki démb rek lañ fi jóge ñu leen di jooy te noppeeguñu muy kan rakkam Serigne Alpha Seck mu bàyyi Serigne Ousseynou Khoudia macha allah di ko ñaanal waaye ak kan ak Serigne Maodo Babacar Seck mi nga xam ni yàggul bi mu fi jógee ak Serigne Adama Seck. mu bàyyi Babacar Seck macha allah ñooñu la ñuy jagleel euh, bis bi ak ñi génn àdduna yëpp ñu ñaanal leen yàlla doo leen àjjana te ñu dëkk fa ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la ñu euh, teewlu woon ci jataay bi euh, kàddu soxna yi macha allah wax nañ ñu ko soxna soxna Ndey Jóoba Mbuub Euh, moom moo ko yëkkati waaye yëkkatil ko soxna Ndeye Kane macha allah mi nga xam ne mooy euh, président bi euh, nekk ci yeneen i yitte ñu gunge woon ñu tamit Serigne Malick Seck gunge woon nañu ci jataay bi ak oustaz oustaz Ndaw macha allah ak yaa sayda yi nga xam ni ñu ngi jàppale Serigne Daara ak yaayu Daara yi nekk ci biir Daara yi ñoom ñëpp ñu ngi leen jaajëfal ak ndongo Daara yi jaajëfal tamit Alfa Ibrahima saar mu yore caméra bi Moussa Ndiame Gueye ci waxukaay gi joxante dig daje yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yàlla yàlla def ko Moussa Wane aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yow alquran foo nit te dootu leer cey alquran Quran Qani muler muler Kula al Quran waaw kon képp ku bëgg gis